tànn nañ ñi lañuy ñuy xeex ñun jagleeluñ ko wala jubluwuñ ko ci réew sàngam wala réew sàngam ak réew bu munti doon ci àdduna moo xam France nga tudd wala Chine wala Japon wala Amérique wala keneen ak keneen Turquie ak ñoom seen ubbiku nañu pour ñëpp ñëw ñu liggéey waaye liggéey gi ci kaw kenn ku nekk jël ci wërsëgam ba mu mat waaye ni mu doxee nga xam dañuy ñëw jël suñu alal yëpp bàyyi ñu fi weccet bi loolu dafa war a jeex ci réew mi te loolu dirigé wuñu ko ci réew sàngam wala réew sàngam bu dee nag li xew nit ñi dem nañu euh, euh, cibler particulièrement ay intérêt benn réew ñu koy wax France loolu du suñu ndigal ñun suñu ndigal du woon sax ñu dem attaqué kenn wala toj yëfu kenn su suñu ndigal du woon loolu waaye dafa fekk fu manifestation am France googu ñuy tudd sax ba ñuy def seen manifestation gilet jaune soo seetee magasin yi nekkoon Champs-Élysées nit ñi dañ koo toj parce que saa yu nit ñi génnee bëri ku nekk am nga lii si yitte ki nga xam ne nag dafa ndóol ki nga xam ne loxoom jotul gannaawam ki nga xam ne léeg su añee mi ngi mi ngi xalaat ndax dinaa reer buy amee su génnee gis ni ni fii mën nañ faa am dara bu duggee peut-être loolu moo yitteem waaye ku dem di jël saaku ceeb xamal ni kooku du France moo yitteem ku dem di jël ay couches yu mu yu muy jël pour dem gémb doomam kooku France du yitteem kon bu ñu nërmal xel nit ñi naan nit ñi France moo leen taxoon mën na am ñoo xam ne waaye bëriwuñu loolu la woon mais li ëpp ci ñi génn dem ci boutique xam nga sooy sooy ut da ngay dem fi fa nga xam ne fa mbir mi bëri boo gisee nit jël gaal maa ngi dem Europe yaakaar ni alal bi Europe la nekk kon ku dem ba ne damay profité yi pour toj balaa ngay dem ci boutique jàll bi nekk ci koñ bi ne la soo duggee Auchan lépp nga fa da ngay dem Auchan loolu moo nekkoon li ëpp ci motivation yi waaye nit ñi bur koo wëlbati ne dañu doon ciblé France wala réew sang wala réew sang loolu moom mosul nekk suñu combat ñun France ak keneen la ñu yemale dañu ne ñëpp la ñuy liggéeyal muy asi muy Europe muy Amérique muy feneen waaye bu dee yàlla dénk nañu réew mi ku ñëwati na nga xam ne balaa ñu lay signal ne la suñu pétrole di nga ci am quatre vingt pour cent ñun ñu am pour cent loolu mënatul ne il faut que mbir mi tolloo. parce que alal googu ñun ñoo ko gën a soxla ndóol fii la ëppee ñàkk xëy fii la ëppee mën a bañ a mën a faju fii la ëppee bañ a mën a jàng ci école yu baax fii la ëppee lan moo waral ñu continuer nangu mbir mi ñu ko yóbbu loolu nag bu ñu ko waxee balaa ngay xool kan mooy responsable ci bitim réew da ngay njëkk xool kan mooy responsable sa réew lan moo tax suñuy njiit di accepter def loolu lan moo tax ñuy accepter signer loolu tey am na ci am na koo xam ne dem na am lu mu diglanteek waa waa waa Union européenne ba tey waa Union européenne lu ñu mën a def pour jàppale ko dinañ ko jàppale parce que gëm nañ ni li ñu mën a am ak moom duñ ko am ak keneen suñ ko mënoon a jàppale ba mu am troisième mandat dinañ ko def parce que jàpp nañu ni mel ni Ousmane Sonko su ñëwee contrat yi dinañ ko xoolaat marché yi dinañ ko xoolaat leneen ak leneen ak leneen loolu moo war a jeex ci Sénégal parce que ndaw ñi génn Ousmane Sonko taxul ñu génn dañoo xam ni seen avenir moo nekk en lu ñuy leeral la tam comme